mbokki Senegal, li serigne ci yépp tële te duñ ko nangu mom la jëm ji di fowé serigne mohamed saw ki mo def ay preuve am ba senegal yépp nangul ko waw jangoro yi may waaj lim jëm ji mo ci ay jappal li di ndoxum city bu taw wër impuissance sexuelle manam gor bu gaaw yek bopam amna fi garab bu doy war nga amé estomac ba mu jaxal la ba nga japp ni mënatul wër wowal mohamed saw mi mo ci mën mbokki ak jangoro ji nga xamni mo sonal sénégalais mudi bu nëbbu ak bu feeñ Mouhamed saw mii moo ci mën kenn du moom ci hémorroïde dama ni Mouhamed saw mii mooy waaja mbokki yi kii la sénégalais yi wóolu ak diaspora bi Mouhamed saw fekk ko Caaroy sur mer ci arrêt cinéma Caaroy bi wala nga woo ko ci 77 576 39 10 cey Mouhamed Sow kenn du yow ci mim réew